jaam. kóol kay. daa mel ni taamu ma nga bokk de wala. waaw waaw waaw ñoo ànd waaw. yéen a tëggal caatu yaraax. waaw loolu am na. am na am na tuus mu bees wala. caatu yaraax waaw lépp la daal. non non loolu da ngay laaj gars yi kon. xam naa gars yi mu si gën a fort quoi. Ah. mais am na yu bees waajal yu garaaw. yaa am na yu garaaw nag yu waaj a nag. yu bees sax mais dimanche dina leer. mais man Balla ngeen dëggal loolu du dara. mu doon Moussa arbitre la rek. ñun xoolaa na arbitre suuf la rek. wóor na yàlla bu ñëwee xoolal ñu kurofante aju kase kase bu arbitre suuf la ñuy ñëw dem suñu yoon ah. waaw maa lay bëggee ate nan dem ñëw la xale kii caat yaraax la Adama la maa lay bëggee maa lay ziar mana waa Moro waa Moro ñu ngi fi lépp jaam sant ba alhamdulilah mun naa la naa la gis maa la raw nag maa bàyyi yaa jël si yoon non déggal loolu mais nu ngeen fu ci wàccaa pare nañ bis ba la ñuy xaar bis la daal signé te Mame Balla duggoon na fii fi Moussa Ndoye. Mame Balla dafa signé te liirul déggoo ma de. waxu la bàyyi waxu jàmm. kon yow wéroo kii bu dimanche dina gis lu garaaw. dina gis pare nañ fépp. mooy borom top 5. Mame Balla top 5 ñun ñoo ko fii jëlee. mooy borom top 5. caat borom top 5 ngay dégg déggoo. yàgg naa dugal top 5. <laughs> leer naa yow. bala duus incha allah. pare ngeen. mobilisation bi nag. a ngi suñu ginnaaw. ñaare lépp loo xalaat avion sax dañ koy yóbbu stade. avion du dem dana noonu. avion sax laala dañ koy yóbbu tous dara du xew. avion mënul dem. Zarko day xaar. parce que Seydina Ousmane. dégg mu la looja la day yem place looja yi fi laa turee ba si biir géej. supporter yu jigéen ñu leen nag. daw. di si jàmm waa. taxul. naka yaraax. yaraax a ngi nii rek. mu ngi neex waaw mu ngi neex moom. pare ngeen. pare nañ dem te soog a ñëw. moom Balla fii la duggoon dara fi mu waaw waaw Moussa Ndoye di moom du ñun du ñun duñ moom. loolu. caatu yaraax ne Moussa Ndoye. bokkul bokkul. cin bokkul. cin bokkul cafin te cun ku nekkul place ba laaw. ñu ne ma clavier bi. lépp jàmm. kóol kay. daa mel ni tàmbali waaw waaw waaw ñoo ànd waaw. yéen a am na. am na am na tuus mu bees wala. caatu yaraax waaw lépp secret la daal. non am na lu bees rek wax ma. non loolu da ngay laaj xam naa gars yi ma si gën a fort quoi. mais am na yu bees ñu waajal yu garaaw. yaa ngi seen ginnaaw am na yu garaaw nag yu waaj a génn nag. yu bees tax mais dimanche dina leer. mais man loolu du dara. mu doon Moussa arbitre suuf la rek. ñun xoolaa na arbitre suuf la rek. Hmm. wóor na yàlla bu ñëwee xool ñu Koura Fanta Mbaye aju. kese. kese bu arbitre suuf la ñuy ñëw dem suñu yoon. Ah. waaw. loolu de maa lay bëggee. ati nan dem ñëw la. xale caat yaraax la Adama la maa lay ana waa Morog. waa Morog ñu ngi fi. lépp jaam. sant bu baax alhamdulilah. mën naa la naa la gis. maa la raw nag maa bàyyi. non yaa jël si yoonu. loolu. mais nu ngeen fu ngeen toll pare nañ bis ba la ñuy xaar. bis xalaat ñàkk la. loolu. Mame Balla daal signé te liirul. Mame Balla duggoon na fi Moussa Ndoye. Mame Balla dafa signé te liirul waxu Zarko la bàyyi leen waxu jàmm. waxu Zarko la kon yow wéroo. kii bu de dina gis lu garaaw. dina gis pare nañ fépp. mooy borom top 5. moom borom top 5 la ñoo ko fii jëlee. mooy borom top 5. caat borom top 5 ngay dégg dégg. yàgg naa dugal top 5. <laughs> leer naa yow. bala douze incha allah. kon pare ngeen. mobilisation bi nag. nice. pare ginnaaw. ñaare kan. lépp loo xalaat avion sax dañ yóbbu stade. non avion dem dana noonu. avion sax laala dañ yóbbu tous dara du xew. avion mënul. Zarko day barki Seydina Ousmane dégg mu la looca la day yem place looca yi fi laa turee fële si biir géej supporter yu jigéen ñu leen nag daw di si jàmm waa daxal aka yaraax yaraax a ngi moom pare ngeen pare nañ dem te sooga ñëw moom bala fii la duggoon dara fi Moussa ah waaw Moussa Ndoye te duñu moom loolu way ça veut dire que Moussa Ndoye du ñun ñun tam du ñu woon da nga neex caatu yaraax ne Moussa Ndoye. bokkul bokkul. cun bokkul cun bokkul cafin te cun. kay nekkul place su Maala. clavier bi clavier bi jëlal ma clavier bi. neex si lamb. bés yi moom ba mu koy indee contre Balla Gaye bombardier dafa neexoon de si loo nekk. maa ngi fi rek. cool ah. nice. mu ngi baax nice. yaa ngi wàllu clavier. waaw. li li lu mu wut si lamb. neexal rek ambiance. ambiance la waaw ndax loolu daa musul am ci lamb moo tax. yomb na. nice. yomb na li ah yomb na yomb rek waaw. defal li ndi ko peese ma defoon ma ba mu ko. waaw boobu moom mooy rey. defaat mayaat ma ko ko bii moom mooy rey moom. na yee jaaw. mais lii dina ñëw arène lii dina ñëw. waaw incha ah. waaw. kuus mu bees wala. waaw. naaj waaw. lu bees neex de. bul dina wàcc. lu bees neex de. barki yonent bi ko wax loo xamoo ko sax. mais Mame Balla ngir dajal de. yii loolu bul xalaat. borom top 5 la. kooku bàyyiwuñ ko sax. ku mos a bëre yóbbu na la top 5. moom maa fii lay teeralee. moom maa wax loolu. rendez-vous dimanche. incha allah. kontaan na ñun ñoo moom leen de. père loo bëgg a wax ah. loo bëgg wax. non tey suñu doom a xewle. muy kan. muy caat. caat yaraax. di xale boo xamante ne suma jarbaat la suma doom la. di nit ku am jom. tubarkalla macha allah man daf maa jox cër. di ñaan yàlla nag tubarkalla macha allah combat bi mu am yàlla na ko ci yàlla may ndam bu sedd guy. loo ko ñaanal doyul de. suñu ndaxte sama jarbaat la sama doom la sama rakk la sama lépp la. mi ngi noonu di dugg si. Caatu Yaraax waaye xale bu am jom. ah Mame Balla lay dajal. waaw bu yeboo mu dajeeg Yékini sax ñun li ñu yor xam nañ ko. xam ko waaw waaw. tey xelal nañ ko te liñ ko xelal moom lay def. Ah. bu dimanche ak jàmm nga xam ne. rendez-vous bu dimanche. bu dimanche incha ndam si Yaraax lay jël si. ngi noonu mi ngi noonu di ñëw dalal na loxo ba ca kaw joxañ yaraax l'enfant chéri de yaraax benn yoon rek la mos a dégg mu ñëw ci làmb ji waaye cey maam Balla bi mu dajal top 5 la mi ngi noonu daw na ànd ak Doudou Ba Doudou fa la ninkee dafa judd rek nekk mbër. open press baa ngi noonu Khalil Caatu Yaraax la moo war a ak Mame Balla dimanche la 12 février la grand combat bi Bombardier la ak kan bo Tapha Tine Bombardier Tapha Tine tey dimanche combat bi fi amoon la de revanche la wala qualification xale kaay jëloon Pape Diop Cheikh sa boy la. sama rakk la. waaw ah. ah, xaaral. moom ci la bokk. waaw ci la bokk waaw. waaye ma dajal moo dàq bëre si làmb. yàlla Mame Balla. Mame Balla. cat. ci cat la waaw. li mu la sa naqari moo ñu ko fajal. ah. li mu la sa naqari moo ñu ko fajal. lépp lu leen naqari moo leen koy fajal. moo leen koy fajal waaw. naqar bi ngeen amoon yaraax mën na leen koo fajal. moo koy faj. dina loo ko dara ci Mame Balla. ba dimanche. dimanche yaa ngi ngem. dimanche maa ngi ñëw. dugg nga Fatick. <laughs> dugg nañ fépp. dugg nga Joal. <laughs> fépp la ñu journal baax na. foofu dugg nañ fa. amul lenn mooy Mourou Ngom. mi ngi ñuy toog ndaw rabin. ndaw rabin. nee nañ fii caat ay dirisé. waaye maa ngi ànd ak sponsor leader bi Khalil ETDR ñu jàppale ndaw ñi jàppale mag ñi Kandji production mooy sponsor fu ma jëm mooy sponsor bi sponsor bu mag bi fi wóor te wax ndax ñun këram meer gañ la ñu waxe waaw waaw dara Caatay Idrissa fii Caatay Idrissa ah wax naa ko ndax damaa bëgg gudd fan Mame Balla garaawul Mame Balla top 5 lay dajal de waaye journée boobu wës jàmbaar bu yaraax dajay bëre ak Maguette Seck di war a bu école Boy Niang foofu ñaaxum doomu Bawol ji ndaanaan bu mag bi dafay bëre ak Tonnerre le revenant ñoom ñaar ñëpp tax ay revenant lan ndax njaaxum maa bëre guy gi doy na maa bëre kër ga mbose doy na waaye tonnerre mi bëre woon ak Papa Sow tonnerre mi bëre woon ak Paul Maurice tonnerre mi bëre woon ak Ron Balax tonnerre mi bëre woon dem si yàlla Moussa Dioum eh, loolu bis la yamul foofu de am na njool waalo moom mooy daje ak kan xanaa tas yaakaar aj leen loxo dal ko indil kuy woote Kana mënu maa jël appel de waa jàmbar production maa leen bëggee Assane bu jàmbar assurance mooy woote bu jàmbar maa ngi bëgg waa jàmbar production yëpp Mansour Ba moo la ca waaye caatu yaraax a noonu na loxo yi dañu leen wax assurance assurance bi wóor la fancière de l'unité 25 l'open press de Thiatou Yarakh la fancière de Yarakh Thiatou Harlem Ama Baldé a top 5 Pikine Mbolo le jeune champion Ama Baldé le grand champion alay sibri Serigne Mbacké Mara waykat baa ngay way Abou Sefa ndeysaan wala dëgg la wala fa ko wax xoolal xoolal xoolal kaw terrasse yi waxu culture la dëkku lebu la waalo waalo bi xoolal maire yi xoolal Lo Sodou ñëw na xoolal maire yi Lo na ànd ak Boy Nar moom maire mi ngi ñuy toog xoolal Kumbe ndaw rabin ndaw rabin nee fii caat ay waaye maa ngi ànd ak sponsor leader bi xalil ETDR ñu jàppale ndaw ñu jàppale mag ñi Kandji production mooy sponsoris fu ma jëm mooy sponsoris bi sponsor bu mag bi fi wóor travaux bâtiment bu ngeen bëggee seeni bâtiment dem leen seeti ko xool xale jigéen yi ñu taxawee xool ñu toogee tey làmb xalil est-ce que est-ce que boo dem doo bu yaa ngi nii de li bu doy maali maram ak seen iPhone caatoy dirisé lu bees tàq la ah ah ah ah bul ñu indil problème nag xalil kii bu ñu kii bu nag ay caatoy dirisé moom ñun mënuñu koo wax ndax ñun këram meer gañ la ñu waxe waaw waaw jërëjëf waa kii kana eh loolu la wax Thiatou Idrissa eh Thiatou Idrissa fii Thiatou Idrissa ah, wax naa ko ndax damaa bëgg gudd fan Mame Balla garaawul Mame Balla top 5 lay dajal de waaye journée boobu Weuz Diambar bu Yaraax dajay bëre ak Maguette Seck numéro 2 bu école Boy Niang yemul foofu doomu Bawol ji ndaanaan bu mag bi dafay bëre ak Tonnerre le revenant ñoom ñaar ñëpp sax ay revenant lan ndax Ndiakhoum maa bëre guy gi doy na maa bëre kër ga mboose na waaye Tonnerre mi bëre woon ak Papa Sow mi bëre woon ak Paul Maurice Tonnerre mi bëre woon ak Ron Mbalax tonnerre mu bëri woon ndem si yàlla Moussa Dioum eh, loolu bis la yamul foofu de am na njool waalo moom daje ak kan xanaa tas yaakaar aj

Ama Mbal a top 5 Pikine Mbolo le jeune champion Mame Balla le grand champion le vainqueur de Moussa Ndoye Caatu Yaraax ngi noonu tuus mi neex na waaw mi ngi noonu Moussa Ndoye ngi noonu Wës Jàmbaar Kaw Gourdin Doudou baa ngi noonu Moussa Ndoye ñëw na Moussa Ndoye ngi noonu Moussa Ndoye du mën a ñàkk le vainqueur de Tonnerre nee na daa am doole nee na dafa am doole kaay fii Moussa Ndoye nee na dafa am doole loolu Moussa Ndoye wax mbëru nday bunta la nday bunta bu xarañ la baa koy bëggee Dame Ndoye dugg si na l'enfant chéri de Yarakh ak ñoom Doudou Ba Alice Yaraax foo sànni mu tàkk waaye bis ba dimanche la le 12 février Eric Fa mu ànd ak Alioune Gueye tëgg làmb ji làmb fi amoon mu digg doxoon diggante Bombardier ak Tapha Tine ñu bëre woon nañ mois de juin 2011 Tapha Tine gañe ko par médical bii nag moom bëgguma ci médical jël rek kañ dem ci Moussa Ndoye kañ dem ci Moussa Ndoye mi ngi noonu. kaay fii cey cey xale Moussa Ndoye ngi noonu di nuyoo. Caatu Yaraax di nuyoo. bak rek dara maan la yaakaar waa mais Caatu Yaraax. Caatu Yaraax ay noonu. jëlal fii jëlal Moussa eh kaay kaay Ndoye. ma ne Moussa Ndoye man jaaxal nga ma. ah man de sëñ maa wax yàlla na ko yàlla may ndam que le maire gagne rek. Moussa Ndoye lu mu wax mu ne. waaw xay caat mu bare rek. non waxal ne a wax. waaw lu may wax. yaa war a wax yaa ngi la may ndam rek laay wax. waaw yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi si jàmm baax a baax. sa poulet noo koy indee. waaw dara def lu ñu war a def rek lépp lu lamb laaj daal dinañ ko def incha allah rabbi. dégg naa la nga ne combat bi daf laa neex ndax da ngaa dajoo ak maam moo tax waaw combat bi suma combat la man suma combat la kafu ma si réew ma si. man maa ko xam sama combat la quoi sama combat la. naqar ba nga amoon ci Mame Balla bi yaakaar nga ne kii aw aw ma woon naqar si moom. non maanaam ma naqar da nga la. ma waaw loolu rek. bëri la rek ñaan si waa Yaraax nañ ñaan rek. yàlla ma ñu ndam rek loolu rek moo am solo di woo Yaraax yëpp di woo àdduna loolu kese moo fi nekk. nga dégg nga Mame la tey sa poulain di bëri ak Mame Balla. le 12 dama si am ñetti combat. Wës Jàmbaar Wës Jàmbaar. Caatu Yaraax ak Caatu Yaraax bébé di ñaan yàlla yàlla may ñu ndam te am nañ yaakaar yàlla nañu may ndam waaw boo lay mooy jaar yara digganteem ak ki nga xamante ne nii mm. mooy Mame Balla te gannaaw bëri nga woon ak moom loo koy wax non amul lu ma koy wax muy que Mame Balla moo expérience moo ko si moo ko jiitu si làmb rek loolu lañ ko mën a wax mais leneen li si topp yëpp bu dee gën a féete ndaw caat la bu dee doole caat la bu dee bëre tamit yaakaar naa ni moo li ñuy wax rek Mame Balla naxoon nañu daan nañu ñu accepté daan bi ñu daan tamit mais bu démb doon tey kon tey kenn du ko wax kenn du ko waxati mais kon tey lépp li nga xam ni lu caat war a def la waxtaan nañ ko ak caat tey waxtaan bi ñu ci waxtaan ak moom waxtaanu biir néeg la fóotu biir néeg la rek waaw. le douze la top 5 la tudd le douze la ñuy gis. top 5 la tudd. waaw le top 5 le la ñuy gis le douze le douze nañ gis yaraax nañ gis cosaan dinañ gis Moussa Ndoye bu ñëw si askan Moussa Ndoye bu ñëwaat si làmb mooy caat euh, waaw. ginnaaw loolu Moussa Ndoye fan la jëm. te gis nañ bëgg demoo Ndiaye gerte gerte ak sos. waaw comme euh, dama naan moo fi des comme sama adversaire amatuñu adversaire Zarko dem na Diène Kaïré dem na waaw muy kan non mayuma revanche ñaanuma revanche ma na revanche bi jot na nee na jot na man da nga la aw ma mayuma revanche tolluma revanche ndax tolluma fa ñoom Balla ak ñoom Giri ñoo ñoo tollu si moyen de revanche man tolluma foofu mayuma ñaanuma revanche sa diggante Giri dëggaluma la wax du ma moromam si lamb loolu duma moroom si làmb mën nañ nekk ay mag nii ay morom nii mais duma moroom si dama ko rapace si ah, waaw loolu laay wax si làmb mais dara nag sama nawle la waaw non tagaw si man de tey barke yoon tubi bi ñu ma woosoon tey tey tey avance bi ñu joxoon avance na waaw pare naa pour jël waaw parce que mënoo fi toog nag di année balance comme ñiy wax ñëpp kenn du ma si joxal dépasse kenn du ma si fayal saalu musculation kenn joxuma samay transport wala dara kon am naa droit mënu ma toog tamit di xaar ñu ma la kañ kon jos na ñëw ñu bëre ma compétir déwén lamba ji beeku ñu xool nan la ñuy def daal bëriwaat. moo tax mu daw Alioune Seye 2 tàmm sos mu nooy mi. non Alioune Seye 2 mënu ma ko may chance mënu ma ko may revanche mënu ma lu nekk loolu moom du ma sax débat. a bëreel moom moo ko daan ci ay. waaw loolu amul problème man man daan ñi ma daan moom si la bokk na lim basam ba pare loolu amu problème mbër yàgg naa daan nit tey da ngay xool du kan laa fi desee samay morom yaa nga xam bëri gu ma ak ñoom ñi ma ku ma mosul bëri laay man loolu mooy sama philosophie fi mu nii ay bëri bëriwaat bëri bëriwaat bu bakkañ ah léegi li nga bàyyi ci ay millions mu bari mu jàll dafa loolu bëgg naa ko leeral tey millions yi nga ci bàyyi bari na de promoteurs yi nañu bàyyi di ma jaxase ak nit ñi. mun na jaxase ak naa Moussa Ndoye fay ko xaalis bu bari kenn waxu ci dëgg. loolu dëgg tey laay wax ñu xam. ñi bari na de. may entraîneur ngi nii man du ma caaxaan kenn waxu ci dëgg ma wax nag waxee ma dënn eh, dëgg. Ah. amul kenn ku ma sa fay combat bu tax ñuy wax ñooñu nag am nañu am nañu ay combat ma du ma wax seen tur ñi ngi dir ñi ngi seen i préparation combat yal na leen yàlla defal mais amul kenn ku ma si woo ni Moussa Ndoye man la waaw ngan ma fay naa nangam ci diw nañu bàyyi loolu. nee na génn kay rek kese moo ko yàq. non amul ku ma si woo wax ma kese bu normal déedéet tey laay leeral nag parce que Moussa Ndoye di wax si di internet bi Moussa Ndoye di tontuwaate wala dara mais kenn waxu si dëgg nañu bàyyi li ñuy def loolu rek la am lu wax. waaw. waaw man maa gën a bëgg sama combat man mii di wax ak yéen parce que mënoo fi nekk di entraîné dem ba kañ. ba kañ parce que li may daj dafa métti man bi ma ñëwee ba léegi dimanche la am repos dimanche kese la am repos ah, ah? bi ma ba léegi ñëw ma pour toog ñëw ma pour dara non loolu euh, waxu kilifa la yow xam nga waaw non moom may ma ko sens Alioune Seye 2 may ma ko man ki ma ñi ma bëreel ñëpp ñi ma daan ñëpp kenn laa si mën a ñaan laa si ñaan sens te du léegi ci kaw dañuy dagee ci kaw béykat béykat non ki ma mujjee daal waaw dañuy bëri ci kaw de waaw dañuy dajewaat man loolu na loolu du man kilifa gi yéen a ngi wax mu ne nañ dagg wax jooju ah. waaw rek waaw kon baax na. maa ngi nii maa ngi si jàmm lépp jàmm lépp jàmm kay. mais da ngay ñàkk nii lan la. waaw liggéey rek liggéey rek mooy loolu jàppal suñuy wax di la ñaan. waaw avant bu yaraax maa ngi ñëw ci moom. waaw Sine Fall. mais yow foo toll daan nga caatu yaraax. waaw maa ngi nii rek ñëw vingt deux caatu foogaa di di xaar combat rek état dama bëgg gars yi si kaw jox ma chance ma bëgg. pare nga pare nga. yàgg na gis nga bu ma ñàkkee ba ma xool nga ne pare naa woon seen tubaab mbaag di ñaan caatu yaraax ndam ñaan ama ndam di ko ñaanal wës jàmbaar. ñetti mbëri yaraax ñetti mbëri yaraax ñoom ñëppay am ndam incha allah bu soobee yéen. maam mi daanoon Moussa Ndoye. maam Balla caat da koy ama day am ndam wóor si ama day am ndam. yaa tijji. barke Seydina Mohamed. koy dajale doomu joxul bu tëngëj. Eh, am nga combat. maa ko mën maa ko doole. am nga combat de. xale bu ndaw billahi wallahi li ma ci combat bi. kooku ab seex la doomu joxul seex la. non day xaar. seexu yàlla la. dimanche ñoo ko moom. day eh, borom. 3 3 3 3 9 pare nga kon non pare nañ fépp Yaraaf 100 pour cent Yaraaf bi nag non génal di jiital nuyoo bi si Moussa Ndoye suñu grand grand bu baax suñu grand caatu Yaraaf loo sol wasu jàmbaar africa gis nañ taxawaay si combat bi di ñaan yàlla yàlla ñu may jàmm ba dimanche Yaraaf bu kenn des estat day fees day mobilisé war na yàlla day fees maa ñëw daan jox wës mu daan wës jox caatu Yaraaf mu daan mu jeex ñu est ce que dina yomb maa la ko wax fii nii li nga wax yombul ngeen bébé ama waxoon na ma ko ah. maa la ko wax barka alxuraan billahi wallahi baax na yow baa ngi noonu yow baa ngi ne gis nga ñaar la su ma juumul ñaar yeew la de tey man dama xale ba ragaloo yeew bi Pape Diop kaay Pape Diop Pape Diop kaay yow baa ngi noonu ma ne damaa ragal yeew bi Pape Diop taxawal nii taxawal nii Pape Diop xaaral ma nuyu borom yeew bi maa lay ziar. ziar naa lu bëri. ba lépp jàmm. sant yàlla bu wér-wér. mais yow bi ba wóor na. non wóor na. nga laal. waaw du ma de ah. dara. du ah, lii lii xalil xalil lii wóor na ah lii na su ma matee doo dara. mu jëlee rango. non waaw. rango boobu. non la. dama la. ñaar la de. lu la. nga ñëw làmb seen seen. ñeneen non xam nañ loolu. bul ngay ni sa laabu mais sunu tour la. mais fu ngeen toll combat bi pare wala pare ngeen. yàgg na bu doon tey ñu tey. mais baaru ñëw laabu Balla. dama kay wax lenn. loo koy wax bu ñu ko jàppee. Ah. mu xam lépp dëgg la. da ngay duggoon fii yéen a xam ne. daan fa Moussa Ndoye. muy jàng école. boobu caata nga jàng. boobu xale muy jàng école. léegi caata màgg. ma xale màgg na. te ko jàppee mu xam lépp dëgg la. lu mu yaakaar ah. du am. mën a bëre la def moom moom mooy Mame Balla top 5. top dafa man a bëree ban turee ko Mame Balla top 5. bu jour waaw du gis top 5. yàgg naa dem top 5 de. Mame Balla tey a bëri bu bu amul sens. non non bàyyi ko mu bëree de bàyyi tur la moo tax bu ñëw. waaw. ah mais tey ànd ak yaraaf ma ñëw ci Pape Diop ak na riir ba gaa lambee sa sa man lan koy loolu wayu lébu la siyaar naa la de ba lébu jàmm booga ana wës jàmbar ngi noonu ca suba ñaar korsu la jël xanaa dafa bëgg a xeex jaajëf waaye ndeysaan na riir waaye xalil caatu yaraax mi waaw na riir keroog yi defee lan sa baayoo man na riir keroog sa loolu woy la kaay jël Pape Diop Khalil maa lay bëgg di la siyaar moo xaalim delloo siyaar maa lay siyaar bu baax lépp jàmm sant yàlla alhamdulilah ñu ngi sant samp la woon nekkoon ci lamb ji nag yàlla defoon mu amut mu tawal toon nag tawal bu xaw a me mais dafa mel ni léegi alhamdulilah waa sant yàlla maa ngi sant yàlla ginnaaw bi ñu sant yàlla jur si yonente bi dañuy sant suñuy wayjur bu baax a baax di sant waa Yaraax di sant képp kuy kuy bëggee boo Yaraax képp kuy bëggee Pape Diop ñu ngi santi sant yéen di gërëm parce que dama nekkoon ci feebar bon du ma ne jeex na mais sant naa yàlla parce que gënoon na métti maa ngi sant yàlla bu baax gënoon na métti parce que affaire yi métti woon na. maa feebar moo la daloon. waa bon cancer la. cancer du sang la lymphome quoi lañ koy wax bon adduna yëpp nag taxaw ma ñëpp ma taxaw ñëpp a jóg jàpp ci parce que yaraax fii man aw ma seen fay. waxal ñu la jàppale. waaw ku ci mel ni monsieur le maire comme mooy mooy mooy njiitu yaraax waaw ñu ngi koy sant ko gërëm di sant honorable député Fatou Diouf kooku aw ma fayam. def na ci lu def na ci lu ne sonn na ci daj na ci lu ne ci man wallaahi fa Diouf maa ngi koy ñaanal yàlla lépp lu mu yaakaar ci adduna moom njabootam yàlla na ko yàlla jottali. ak benn grand bu ñuy wax Omar Dia ku baax la sama xarit cambal moo ma boole ak moom mais rëccu ma ko ba ba tey loxo mi ci man bàyyiwul teggiwul di sant tamit sama waa kër di sant Dale Dale Wade maa ngi koy sant bu baax. Loosoo tamit dafa mel son la. non son Loosoo kenn moom Moussa Ndoye. Serigne Ndour xarit si ñoom laa bëggoon mujjee ñoom Serigne Ndour. 100 pour cent yaraax bi dañ ma taxaw dañ taxaw carrément ci sama yitte ba ma yëg ko Serigne Sène Serigne Ndour. Loosoo Moussa Ndoye sama papa maa ngi koy gërëm maa gërëm sama jabar. sama soxna aw ma fayam awa Dramé di gërëm waa Ndande Fall yëpp ndax ñoom it moom it sonn na bu ko neexoon ma feebaree mu dem ñibbi mais franchement mais may gërëm ñëpp di gërëm aussi waa Ñaaxaar suma ne nee waa Ñaaxaar kooku xam na xam na quoi. maa ngi gërëm alhamdulilah daal sama xarit la alhamdulilah waa sant yàlla maa ngi sant bu baax quoi. léegi maa ngi sant bu baax instant bi moom wax dëgg yàlla maa ngi sant parce que maa ngi waaj reprendre di sant aussi samay entraîneur ñoom Aliou Sarr Père sama coach salle musculation jalo Escaf Diallo daf ma jàppale ñoom ñëpp ma jàppale dale Ousmane Wade yaraax fii amul ku bàyyi ñëpp ah, ñëpp bu ma liméré damay juum mais ñëpp dañ maa jàppale franchement parler. alhamdulilah rabil alamin alhamdulilah maa sant parce que naa wasaare bi c'est pas la ma di ci def émission kon du ma ne gulet sant naa leen bu baax yéen aussi gërëm leen aw ma fay bu la neexoon aussi mooy loolu yow sama waaye dañoo yàgg. dañoo mooy loolu mais sant ah. na ko di ko ñaanal yàlla moom ak bi euh, Weuz Diambar ak Ama bu yaraax mi war a bëri ñoom ñëpp yàlla na yàlla may ndam yaraax moom loo ko ñaanal doyul ki dàq bëri ci laaw bi la Mame Balla top 5 dara gis nga booy nañ dem ba ci kanam rek yéen waaw yaraax xam ngeen Mame Balla de waaw non ragaluñu loolu daan na fi Moussa de waaw looloo ñu def mbër jël boobu mu daan Moussa Ndoye moo tax maanaam waxuma ku dul Mame Balla mais ku dëkk géej waaye pour mu amati ci waa yaraax jël day metti ah. waaw non parce que maanaam loolu daf ñoo yee jàngal ñu Mame Balla Pikine la dëkk dara Pikine la dëkk mais Guédiawaye lay fréquenté man xam naa Mame Balla am naa jabaram ñoom Aminta ñoom ñoo xam naa leen. jabaru jaamur bi man ki ko may jabar moo ma yar Aline ñoom Vieux Fall ñoom Madine ñoo ma yar xamante nañ man ci ñoom laa yaroo kon am na loo xamante ni si maanaam suñu biir la mais dañuy ñaan yàlla caat la lafal ko cat ba le jour si keroog yàlla may ko ndam bu sedd guy. loo koy digal ci Mame Balla non li ma koy digal mooy mu teey c'est-à-dire gis nga moom bu teeyee dara jomb ko ci làmb caatu yarax bu dalee tey dara jomb ko ci làmb mën na am lu ne mu bañ a yàkkamti jox ko respect xam ne moo ko ëpp expérience ci làmb aussi mais buñ ko jàppee fi ñu ko war a jàpp buñ ko téye fi ñu ko war a jeex làmb day jeex franchement day jeex le 12 incha allah di gërëmaat waa Yaraax aussi di gërëm ñëpp di gërëm waa Dakar Dem Dikk aussi waa Dakar Dem Dikk dañ ma jàppale de waaw man Dakar Dem Dikk laa nekk dama leen dama leen di sant bu baax ñoom ñëpp nag sama chef yëpp maa ngi sant waa Dakar Dem Dikk yëpp ak waa Acacia sama grand yëpp ñu ma jàngal métier man aluminium laay def mais lépp maanaam dafa bokk ci Pape Diop bokk ci Boy Yaraax may sant bu baax nag di Xaadim kontaan nañ bëgg nañ bu baax merci beaucoup kooku champion la nekkoon si lamb ji Pape Diop la ñaar ko Boy Yaraax waaye tamit amoon na beneen doomu Yaraax jëlal ma kii Xalil eh, Nour siyaar naa la e eh, kaay taxaw ni yow Gris 2 copain Gris 2 e eh, taxawal nii yow dafa bëri dosé nag waa ji taxawal nii taxawal waaye sant yàlla maa ngi. lépp jàmm sant alhamdulilah. balaa maa dee Moussa Ndoye di la jay naan yaa gris de combat la. barke alxuraan maa ko mën. Moussa Ndoye daf lay jay quoi. waaw non du jay sax li mu man la wax rek. moom nooy bëree gris de. waaw non du ma bëri mu message yi mais ay naataangoo lañ. naataangoo taxul ngeen bëree de. waaw non mais lamb gi looloo fi am. yow nekkatoo dama yeex sama licence ak sama poos. nga. nga naan kan moo ren gii ren boo bëggee ma la ko. lan moo ci mbabari di bëre. non dama waaw mais loolu la mais yàlla xam ne damay gis lutte simple bi léegi incha allah. mais Thiatou dafa mel am nga ci moom yaakaar ba yàgg nga ma wax ay waxam. waaw non bu baax yow xam wax. ca depuis combat am ak euh, deux waaw waaw euh, kon kii presque ñoo ko tette ci bëre. waaw te te def lu ñu yëgul. sa poulain bu baax a baax sama la. mais ki ma dajal Mame Balla top 5 la dafa mën a bëre. waaw top 5 loolu wala wéy na. Moussa Ndoye na Moussa Ndoye top 5. non loolu garaawul incha incha allah Moussa Ndoye bu dimanche mooy ngeen rakam mu ñëw daan euh, euh, Mamballa bus billaay wallaay. mën a bëre de. waaw dafa mën a bëre mais kii xale ndaw la dañ koo yónni. yaakaar di ko yaakaar di ko caat dala turu caat. Ah, caat kay jeexal na wax. ci Mamballa. ci Mamballa waaye kooku taaw la. Ah. wala wéy na. waaw ba dimanche incha kon. jaajëf yow Moussa Ndoye mi ngi noonu ak a mën a fecc lébu la yaram ba tàng Pape ngi noonu si nañ tey ndànk rek Moussa Ndoye waaw ji jaan yi xoolal yeew yi waaye yeew yi tamit waaye li lan la waaye kii koo seex di yow koo seex kii koo seex da koo seex xool yeew ee laa ilaha illallah ma ne lii man ñemewuma ko xalil ma ne lii duma ko def man seex yeew ca bopp la seex cay lambu ak lamb lamboo ma ne ko tey lamb ak lam lamboo ba tey sponsor li neer bee ñu sponsorisé moo ma sponsorisé un TDR travaux bâtiment bi Moustapha Kandji boy boy waaw kii la nag booy nga yor yi nag waaw gis nga dégg nga leen wax ci bi man ne waaye raax man jaaxal na ma waa lii tamit lii lan la tamit kër su noonu Khalil su baaxee rek ñu dem Moussa Ndoye yaramam tàng na de ay babul jarat waaw di ziar sama gaay yi màggal ñëpp ah loo nekk waaw sant rek sant bu wér a wér alhamdulilah ñu si jàmm baax waaw yaraax mi ngi nii rek ñu waayat suñu combat bi waaw di ñaan yàlla may ñu dam cat moom wax dëgg yàlla moom champion la ñaan yàlla dafal ko ndam ak euh, wës jàmbaar ñoom ñëpp. Ama bu yaraax sam combat waaw ak Ama bu yaraax. mu yaraax buy bëre ne maa ngi gërëm ci karaaseel ak Serigne Ndour. waaw dëgg la gars ñoo far ñu nag ñoom ñoom dañ ñu nekkal ci kaw ñoom far. waaw loolu la moom mais Mame Balla dafa duggoon fii daf fi jëloon daan fi Moussa Ndoye top 5. waaw tey nag mu daj ak caatu yaraax. waaw Mame Balla loolu noonu lañ jël si. suñu drapeau boobu moom la jëli te dañ koy jël force insha Allah rabbi billahi wallahi taalahi xol bu combat bi jeexee dinañ ci waxaat incha allah rabbi waaw ñu pare nañ fépp. pare fépp fépp pare nañ fa ñu ngi fa ñu ngi si jàmm baax. daaru mus waaw ñu ngi fa ñu ngi waajal daaru waaw waajal màggal gi tamit waaw di woo baay daaru yëpp waaw yow moom ren dañoo bëgg sax xool ñu def ko ba ànd ñun ñëpp ak sëñ Bamba ah, waaw nan lay demee sax dama koy dama koy bëggee man waaw gis naa loolu yow baabul laay baabul jënd <laughs> waaw gis nga Bamba kontaan naa ci yow jaaraama kooku sëriñ kat lim fi def bari na le vainqueur de Atou wala autrement boo ca wax benn la sotti ko benn biteel siyaar naa la mbay ngi noonu mi ngi lëndëm na Kër la muy caatu yaraax am bis bu rëy diggante boog Mame Balla mu war a am dimanche le 12 février ñetti mbëri yaraax war cee bëre Ama bu yaraax moo war a tëj baal bi ak Maguette Seck caatu yaraax mi war a tëddee ak Mame Balla kon ñetti mbëri yaraax yàpp ñaar ñaa ngi nit dañuy tëjee ci mam Ama bu yaraax ñu ngi lay nuyu di la ziar waaw maa ngi leen leen ziar ginnaaw ma sant yàlla julli si yont bi sant sama ñaari waajur di sant waa yaraax ñu fekk yëpp maa ngi leen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 maa koy def man leen laa waxoon maam Balla te ci laay delluwaat. dafa dab xale boo xam ne xamu ko ci làmb. xamu waxoon rek xur-xur day am place mbala wala filaatu la. déglu leen di wax ne làmb moom mënut a weesu làmb da ngay ànd ak say nekk say entraînement ànd ak say coach ànd ak say xarit dox ci wàllu bu weesoo loolu la jour yàlla moo ci def yàlla raga a xam. waaw man caatu yaraax moom du ma dig benn amateur ay 5 minutes ak 10 minutes xale laa te bëree ma tax a jóg. borom seconde yi. su dawul rek lamb ji day neex ci kàttanu yàlla. jërëjëf Thiat dégg a ci wax léegi léegi. léegi ngeen bëri garab bi ne Mame Balla ci lamb tey nga nga bëgg ko may lii rek ma ay nii ma ay a maa ci lamb ak retour boo xamante ci lamb. parce que Mame Balla ci lamb dafa mu dem ba ci biir ak traité daal koy dem mu jël combat jàng ba ñu ko mën a jël bëgg jël xale boo xamante ne ñëpp moom la ma jël ko fere ne ko jàng teg sama yoon Thiat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 mais wax dëgg yàlla yaraax daam am borom. Hmm. am na solo ci côté mobilisation. parce que ñëpp xam na ne ñëpp ay bëri ñëpp am mbooloo. te bi yooyu di wax ne mafia yëpp pare nañ. pare nañ caatu eh? eh? eh, yaraax nag dafa bëri. mafia caatu yaraax dafa bëri. ba diaspora bi. dafa bëri mafia Caatu Yaraax foo dem ci àdduna Caatu Yaraax ñu ngi ko fay bëggee di ko seetaan wax dëgg yàlla la mambala day ma rey la daaneel ah waaw waaw tuus mu bees la wala lan la waaw lii dañ doon nuyoo sànq rek tuusaguñu sax ci kàttan yàlla bu ñëwee arène nationale le douze ah. ñun ñooy diriger comme ni nga ko waxee rek fii caata diriger. Ah, loolu lu bees la. waaw loolu dañ ñu indi. caata diriger kon. waaw. caata diriger.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 montagne feeraay sant yàlla jaalo waali neexle waali daan maanaam ay see yaraax yëpp en